bismillahi rahmani rahim nit ñi xalaatatuñu yàlla kenn ku nekk yaa ngi xalaat sa bopp ak sa bakkan ak fooy fanaan defar fi ngay fanaan xam ndax danga fa nelawee ku gën wala déet defar sa lal ba mu jekk yàlla bàyyi ba nga defar ba jekk ba cuuraay reer ba suur ba tàggoo ba defa ni yaa ci nekk boo xëyee néew ngay doon yàlla rekk ko mën خلاطو ليالا دا غاي نخسا بوب الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون اي واي واي كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم فبابا ثم لترونها عن اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم اين من شادوا وسادوا وبنوا هلك الكل فلم تخن الخلل ana ñuy daan woote ñi ñooy boroom gratte-ciel yi ana boroom kër yu rëy yi ana borom bâtiment yu mag yi ana boroom alal yi ana borom oto yu rafet yi ana boroom sañse yi tey boo demee ca sëg ya doo ci xamee kenn ñoom ñëpp même pied même égalité même niveau kon jaamu yàlla rek a wóor son bàyyi nee na boo ànd ak sa sëriñ mu lay nax naan la boo dee maa la res te waxu la jaamul yàlla loo yor na dal bu dee mbëkk na dal kurpeñ na dal yet na dal bés bu nekk ab sëriñ romb taalibeem fii ci 100 mètres wala ci kaso ñu tëj ko fi te du ca man dara mu ni kaso yii àdduna yi ku muy tëj kaso yàlla du mat a wax te ñett sëriñ bokk ci ñett sëriñ bokku ci sukuraat sëriñ bokk ca biir bàmmeel sëriñ nekku fa jéggi sëriñ nekku fa amul benn sëriñ buy ànd ak taalibeem bëgg taalibe ba taalibe bi di ko defal lu nekk ba tax taalibe bay faatu sëriñ bi faatu ànd ak moom du dem da koy ñaan rek doo bëgg sa sëriñ ba muy dugg suuf nga toppaale ku ñun ñëpp kenn ku ci nekk sëriñ Mansour moo doon suñu bakkan bi mu faatoo dañ ko jooy benn fan lañ ko jooy ak di ko xalaat boobu ba léegi kenn deewul fekki ko kenn deewul fekki ko li nga yëg yow rek yaa ko yëg nit ñi nañu bàyyi di nax seen bopp